أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu de leen ziyaara te di leen baalu àq di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala boo leen jégal ñi nga am mbégte di dalal ak yéen tey jii ci seen site préféré Thiès 24 site bi nga xamante ni mi ngi topp bëgg-bëggu askan yi ci lu mën a doon tey jii ñi ngi am mbégte di dugg ak yéen ci benn portail religieux portail bi nag ñu ngi ciy waxtaan ci diine ak lépp loo xamante ni jullit bi yitteel na ko ci dundam ngir moo ko xam ndax yonent bi alayhi salaam dafa waxoon ni baleeroo nii wala aaya del may jotal samay message donte la sax benn aaya la kon ñi ngi am mbégte bu baax a baax ci initiative bi nga xamante ni waa Thiès 24 def nañ ko ngir ubbi portail boobee kon bu ko defee incha allah ñi ngi bëgg di waxtaan ak yéen. ci li nga xamante ne société bi yitteel na ko muy ay xew-xew yoo xamante ni day yitteel diine ji ak lépp loo xamante ni islaam àdduna ci incha allahu dinañ ci indi ay leeral indi ci ay ay ay bayaan yu am solo ñeel képp koo xamante ni rek bëgg na koo teewlu bu ko defee lépp loo xamante ni yitteel na doomu aadama bi ci wàllu fiq wala wàllu sira wala wàllu xaddis wala wàllu alquran lépp loo xamante ni balance la ci alquran wala sunna wala xaddis wala lu mën a doon rek ci islaam rek incha allahu ñi ngi am mbégte di ci dal ak yéen incha allah di leen defal ay leeral kon bu ko defee rek képp koo xam te ni bëgg nañoo jot mën nañoo jot ci ici Thiès 24 arobase gmail point com wala nga jël suñu numéro 77 303 72 31 wala 76 303 79 10 incha allahu lépp loo xamante ni jullit di bëgg nañ koo xam rek ñu ngi ciy laayante biir ni ko yonti maa di waxee incha allah di ci dimbalante bu ko defee loolu dafa doon loo xamante ni yonent bi alayhi salaam da ko daf ko yitteloon ndaxte ba bëriwaa na ñu gis ci jamono ñoo xamante ne ñu ngi taxaw di dab bànneexu jullit yi waaye li ci ëpp wala li ci gën mooy nga fexe ba li nga xamante ni war na jullit bi xam ko mu war koo xam bu ko defee mu jàll nag jëm ci mbiri àddunaam loolu nag ci la waa Thiès 24 taxaw jël initiative initiative bu rafet ngir fexe jàppale waa Thiès waa Sénégal ak mbooleem àdduna ci sit bi nga xamante ni ñu ngi koy seetaan képp ku seetaan rek di nga dolli ko sa àdduna waaye tamit di nga dolli ko sa diine kon ñu ngi leen di dalal bu baax a baax di taataan seen i seen i laaj incha allah SMS wala seen i euh, message par Gmail wala seen appel lu ñu ma doon rek incha allahu pare nañ ngir waxtaan ceeg yéen ngir laayante biir di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala defal ñu tawfiix ak najaax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf.